mbokk internet yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak ñun saa su ne ci seen programme 5 TV ñi ñëw ak yéen ci famille sénégalaise épisode 44 bi tàmbalee ci séquence bi di dund waaye mi ngi mel ni Mara fulaalu ko mi wane une fois de plus irresponsabilité am jëmalati ko ci famille ci séquence 2 bi naka noonu foofu ñu ngi gis Bigué mi nga xam ne mooy doomu Mara di jaay fur bi toogaay toogaay ku jaaxle loolu ci noonu soxna ba dox ci la ñëwee di ne amul yemu ci mu di ko tuutal waaye mu mel ni ne bii gi li soxna Bator di def loolu safu ko ndax mu ngi koy naan du kenn man la séquence 3 bi naka noonu ñu delluwaat ci maar mi nga xam ne mi ngi wéy di waxtaan ak Ngoné di ko wax ni lu ñuy dund yoonam nekku ci Ngoné di continuer di ko expliquer situation bi réellement li Bigué di vivre maar di ko ne xalaatul jël Bigué si entreprise am muy wane ne une fois de plus ne maar fulaalu famille am séquence 4 bi ñu ñëwaat ci soxna Bator mi nga xam ne mi ngi wéy di def mëninam di toroxal famille maar di dem ne dem seeti àll mi nga xam ne dafa feebar dem bay naan doo koy sarax une fois de plus soxna Bator. mu ngi mel ni bu ko savouré victoire am foofu ci bi ñu ngi gis ne jabaru àlla du expliqué àlla pexey batoor lu mu naral maar ak famille bi ci section bi ñu gis ne biige dafa sol lu gàtt di wëri liggéey muy wane ni ni biige dafa changé bu baax a baax a baax melukaanam lu muy lu ñu fay jàngatee rek mooy ni jamono buy dox da ngay moom di dox mais est-ce que nit ku nekk da nga war a topp lu sa moroom nit di di def ndax dañuy naan toujours nit lu la yàlla bindee nun nga war a def ndax nit borom doomu nit ku yiw lu yiw rek nga mën a nga mën a def mu mel nii moo ngi bëgg a wàcc yoonam ci 57 bi mu mel ni ne jabaru àll dafa bëgg famem développé mais lu muy conseiller soxna Marème pour mu bàyyi biigéem mu liggéey mais est-ce que loolu mooy solution bi ñu gis ne arrangement waam rek la xool